Salam salam gars yi maa ngi len di ziar Facebook comme YouTube ma ngi len di ziar bu baakha baakha ba di ci profito di souhaiter une joyeuse Pâques à toute la communauté chrétienne ñaan yalla mu teew koy ati at def luñ ci ñaan aussi Les lu ci yiw ak yërmande aussi yàlla na ko yàlla def ci Sénégal ñun ñëpp bu ñu fekkee côté tal ko incha allah maa ngi leen di ziar bu baax dama bëgg a dellu rek def live vite fait de partage encore une fois un live sur le projet un live aussi sur le combat mais je pense combat le moom dañ orienté vers les préoccupations des Sénégalais vers les problèmes yi nga xamante ni mi ngi gangrène notre société voilà mais ñëw un peu aussi ci actualité bi quoi voilà gars yi nag bu fekkee yéen nag may envoyé ay message sama application bi may live parce que gars yi dañ may demande suma live YouTube quoi dafa am ñoo xam YouTube lañ koy seetaan donc du coup am na ñoo xamante ne dinañ ma envoyé message mais duma ko mën a gis quoi mais dafa bëgg a def benn live de vérité benn live boo xam aussi dañuy fàttali un peu fàttali un peu yenn det yenn duma ma ne détails yi mais yenn principe yi quoi ak yenn mbir yi nga xamante jàpp naa ne moom moo ëpp solo quoi parce que dañu dem élection ñu gagné tu as l'impression qu'on a plus d'adversaires affaire yi mi ngi ne tekk mais on a des adversaires en fait on a un système bo xam dañu ko terrasser mais ce système là pratique yi nga xamanteni ni nii lañu doon xex ay nit ñoom ñoko doon porter nit ñoo ñu ngi Sénégal on a eu on a on a eu des gens yo xamanteni ni on les a combattus ñu ngi Sénégal dañu déglu dañu xaar ñu ngi def ay manœuvres dina ci ñew mais li ma bëgg commencer d'abord je di féliciter patriotes sur la réponse bi nga xamante ni c'est vrai que action citoyenne bi ñu votée pour def cette setal c'est une action citoyenne bo xam Sénégalais yépp la engagé mais les patriotes au premier rang et je pense que c'est ce genre de réponse c'est ce genre de réponse moom moo nar a mais du bien fi tey peut-être on a l'occasion on a la possibilité que télé askan bi mun a wane li askan bi di def patriote yi bokk ci askan bi parce que je pense que la possibilité qu'on a c'est qu'on a fait des VAP on a une action révolutionnaire en termes d'activité politique pour xam opposition dina on n'a pas eu la chance yi on n'a pas eu la chance RTS def sa mission de service public on ko Sénégalais yi ko et le waroon a mën a def nañ fi ay dons de sang yu Pastef mobiliser wu organisé pour que vacances bu jotté ñu dem jàmm jàppale élèves yi pour defal leen ay renforcement ci ay cours yi leen doon jox gratuitement ak yeneen mbir yoo xamante ni def nañ ko tey chance boobu la ñu am moo tax de la même façon quand les gens disent que mission bi dina métti man damay jàpp ne mission bi dina métti parce que responsabilité bi nekk suñu kaalu ak attente yi ci nekk mais lu bëri dina gën a yomb ci ñun. Parce qu'il ne faut pas se cacher, se voiler la face. Hein. Aujourd'hui, nous, sommes au pouvoir, en fait. Aujourd'hui, c'est le président Bassirou Diomaye Faye qui décide. Comprendre Aujourd'hui, c'est notre vision. Hein? C'est notre programme, sur notre projet, sommes le Sénégal, en fait. Et les premiers acteurs de ce projet-là, les patriotes. Mais ils ont la possibilité d'exprimer

Les gens vont découvrir les hommes pacifiants. Les gens vont découvrir les sons Boys. Les gens vont découvrir les Mais surtout, les gens vont découvrir l'essence de notre combat. La quintessence du projet de PASTEF. Moi, développer ce pays-là. Avec tous les Sénégalais. Moi, Il y a eu des choses qui se passent. Je rappelle que le président Macky Sall, le moment est le président en exercice Bosouba. dafa am loo dafa am solo ñun patriote ñuy déglu tey digg suñu njiiti man dama yàgg wax ne nañuy déglu le président ko Sonko buñ ko gën a bëgg li muy def bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu yaakaar ni gën nañ ko xam li muy def buñ ko jaay ne ñun ñoo la gën a nekk patriote buñ ko jaay ne ñun ñoo la gën a bëgg justice am ñun ñoo la gën di xalaat ñi dee ñi feebar ñi laagoo anyway le président yi dafa falu ñun ñu war ko déglu mu ñu laaj ko sax laay wax lan mooy say premier chantier lan mooy say première la cohésion nationale dajale sénégalais yi boole sénégalais yi ruube wax jooju dañ koy mettre en corrélation avec mais ñi def ñi def lii ñi def lële dañu war def nii dañu war def dañu y a des choses yoo xam des prérogatives de l'État moy la reddition des comptes dañu ko jël ñu tege ko nélé dafa am lo xam question de justice la avant ñoo parlé le président Ousmane Sonko le président Diomaye président Diomaye confirmé ko que ne aura pas de vengeance mais il y aura de la justice ce débat là est clos mais président Diomaye bi ko la cohésion nationale moy dajalé bolé sénégalais parce que erreur bi Macky Sall def ñun duñu ko def dañu war a mais bu ñu mës a jàpp ne ñun li Macky Sall gëm ne liggéey ak justice dafa def nii soit da ngay nekk si justice di lijjanti justice bàyyi liggéey wala nga nekk ci liggéey bàyyi justice bi réew doxee noonu réew ay charte la c' pas pour rien ñu indi trois pouvoirs équilibrés ko ku nekk am looy doxal y' a pas de contradiction à ce niveau cohésion nationale la woote moom laay def en corrélation avec ce qui s'est passé au palais Moi, le président de la république bi bi bi bi bi bi euh, comment on dit bi nga xam mi ngi sargal ay sénégalais di leen tabal un hein, li ñu l'ordre national du mérite wala l'ordre national du lion bi demee noonu yooyu c'est des choses qui sont ni prérogative président de la république parce que boo gisee ñu naan ordre national du lion c'est des gens qui ont servi pendant 15 ans l'état wala sur des activités professionnelles ñoo xam def nañ 20 ans de service wala d'action yoo xamante ni Sénégal la ko ñu ne dañ leen pour gën ko ñu national du mérite Nous jox des sénégalais yoo xam ci des domaine nañ leen le président ba est bu cohésion sociale Macky Sall ci ay mbiram moo xam politique continuer politique le fait que Pastef war des un parti politique président Ousmane Sonko président parti politique nous ñu woté cohésion moom moo ko ñun ñoko ci fekk parce que nous lañ koy nous ne ko ay ni ma élection présidentielle on a besoin de tous les sénégalais ñu ñëw Nous ñu voix bu nekk fay compter la pour mu parce que suñu intérêt wu projet bi aboutir ci la mais lolu bokay wax do est-ce que. Youssou Ndour dafa war a ñëw parce que ñu ngi ko doon dégg du fay impôt gi demee noonu loolu ñun ñoo koy lijjanti Youssou Ndour si ba venir jàppale liggéey si Sénégal wala TFM wala keneen ku muy mënti nekk wala même Bougane Gueye Dany nañu ñëw ñu jàpp defar réew mi loolu bokkut ak tey Ndiaga bu sàcc courant ñu jàpp ko wala Ndiaga Ndour bu sàcc fréquence yoon def liggéeyam yoonu Bassirou Diomaye nekku ci mais Ndiaga Ndour dans son domaine s'il propose mi ngi musique wala mi ngi ci milieu leneen sénégalais jappale ay ndawu sénégalais la responsabilité du président Diomaye moy mu jappale ko gunge ko. Télé média, Médias bu fekkente ne mi ngi ci mission de service public waran taxaw ci luy yobal luy luy jëmal projet bi kanam luy jëmmal Sénégal la responsabilité du président Diomaye Faye mom moy mu jàppale ko nonobstant du fait que Youssou Ndour jàppaloon na Macky Sall ou pas c'est pas une question de personne c'est une question de pratique ñun lu ñu soxla moy TFM na nek dans une mission de service public s'il y a dans TFM des gens ont xam ne dañu am ay mbir ak mbiru yoon loolu yoon moom moo koy lijjanti et c'est là où le président Diomaye a été très pertinent c'est là où les gens ont été très pertinents dans le projet en parlant de réforme et de séparation des pouvoirs la deuxième chose le président Diomaye bi ñu ko laajtee lan la wax dafa ne ma wàññi dundu askan bi wàññi njëg yi ci emploi tek ci sécurité donc dafa am ay urgence yu fi ne ñun ñu war a sóobu ci loolu moo tax ma bëgg a def benn benn ma wax benn mbir aussi ñu bañ a jàpp que ne dafa war a am patriote yu nekk ci benn fànn boo xam ñun dañuy jàpp de léegi état mbiru Basiru la ak ñeneen ñun patriote yi nañu ànd ak ñoom Jim Njaay bi demee noonu ñu jëm lijjanti ne mbiru day déedéet dañu koy lijjanti mais dañuy gunge projet bi dama dégg sànq suma frère kii di John Waar muy jàmbaar ci combat bi ma rafetlu trop laaj bi ak liggéey bi muy def mu wax lu am solo mooy que ne état du parti politique mais parti politique mooy doxal état autant il doit y avoir cette compréhension que le président Bassoud Diomaye est le président de tous les Sénégalais autant aussi on doit comprendre une chose que le président Ousmane Sonko c'est le président du PASTEF les patriotes et qu'on a un parti politique on doit continuer à s'impliquer parce qu'il y a des élections qui vont venir. On a un calendrier républicain. Peut-être dans quelques mois, on va aller dans des élections législatives. Élections locales de Élections présidentielles à la coulée de Nanyawar. Nous nous Et surtout qu'on évite de dire que l'État a ñi Nous xam ñoom ñoo àndoon ak kii nous écarter. c'est des chroniques quoi gis nga gars yi l'État ñu fi jaayee état wu état amna le protocole état amna organigramme état amna architecture état am parce que loolu daf ñuy permettre ñu leeral lu bari nous xam gaay dañuy dox on ne laissera jamais le président Diomaye ñu duggal ko ci benn affaire boo xamante ni dañ koy ne moom ak ay nit lañ ñoo xamante ni mais y a des commis de l'État il y a des gens qui sont au service de l'État Il y a le protocole boo xamante Mour la fi nekkal mais le président Diomaye Faye c'est le président de la République du Sénégal ay prérogatives moy mom moy la aux emplois civils et militaires bu ñu la nee président boobu mom mo mel non pour ma ñëw après ci nomination Macky Sall bi mais bon sang comment est-ce qu'on peut poser la question de Ousmane Sonko président Ousmane Sonko dafa wara a ànd ak Diomaye ou pas man quand on pose ce débat là damay jël recul deux ñaar ñaar bi ma ci nek mo ci nek la première moy on doit refuser qu'on nous impose encore ces débats-là sinon médiocrité si nous donnons, duut wa APR ak nous des sur des débats inutiles on doit s'imprégner du mode de fonctionnement de l'État on doit s'imprégner de notre modèle de gouvernance on doit s'imprégner de notre modèle économique on doit s'imprégner même de l'architecture gouvernementale des missions de tout pour nous savoir xam naka projet en termes de communication en fait en termes de proactivité dama am solo le président Diomaye bu newee en exercice moom moo yor cëggalu pour nommer aux emplois civils et militaires moom mooy tànn ay collaborateurs am ñu bëgg ñu déjà dugal suñu bopp que ne bu ñu demee ba falu fan la Ousmane Sonko di taxaw fu fi ko président Diomaye nek yow fi ngay taxaw du journaliste moo koy du société civile moo koy tànn du Aliou tin du ibrahim Seck du ken ku dul président Diomaye mooy xool le président Ousmane Sonko xol fan la amé njëriñ ci projet bi mu teg ko fa ñu wax ku mu neex ku mu nakari ya xam boobu moy bu ñëk bi la deuxième chose moy le président Diomaye en tant que président d'une coalition qui a gagné dañ ko convier au palais pour une visite de courtoisie quoi de plus normal mu tan ses plus proches collaborateurs il n'y avait pas que le président Ousmane Sonko il y avait un autre diplomate qui était à côté de nous Vous bu ko neexoon mu problème parce que le président Ousmane Sonko fait créer de l'ombre à Bassirou Diomaye depuis quand est-ce que vous vous préoccupez du président Bassirou Diomaye mais le président Ousmane Sonko il y mu wadd Mouad qu'est-ce que vous voulez inspecteur principal des impôts et domaines que vous voulez?

wane compétence am fa muy liggéeyee wane maandu ba fa muy liggéeyee en 2015 ñu jox ko ne ko bindal la charte de la déontologie de la DG DGD mu ñëw jël Pastef bu jël 2014 def ko le premier parti au Sénégal le parti le plus populaire feeñ na tey ruubekat yi fii lañ nekkoon parce que mënu am 35 parce que mënul nekk di vous pensez que ñun ñun patriotes on va suivre ce rythme là vous pensez que yéen ce que vous voyez dans les réseaux sociaux et def vous pensez que c'est des c'est des c'est des ñun def réseaux sociaux le président Ousmane Sonko parce que tout le mérite aussi revient à tous ces gens là qui ont très tôt compris le projet et qui l'ont accompagné au prix de leur vie avec beaucoup de sacrifices Nous bëgg beaucoup d'élections. Le président Diomaye bii xeex pour mu beaucoup d'élections. ñun patriotes, ñu xeex pour mu beaucoup d'élections beaucoup de sénégalais xeex pour mu beaucoup d'élections Macky Sall taxaw na mu trouver une stratégie Pour sauver le projet Nous avons un candidat le président Diomaye Faye une légitimité historique une légitimité politique ak ce ci est dégg dans Pastef surtout nous avons ko ba de temps. mu nekk un inspecteur principal des impôts et domaines avons aussi secrétaire général du syndicat des agents et impôts et domaines bokk ci ñi la tête pensante de li ñëpp di tàgg tey la ñëpp di coow tey en Afrique et dans le monde vous n'allez pas rendre petit ce projet là en fait ce qu'on a fait est grand le plan Ousmane Sonko nit ku màgg la nit ku kawe la mun naa comprendre ñu ne ah mag bi mu ak kawé mu kawé de est-ce que bu est-ce que dina xej fenn loolu mën nañ ko wax parce que loolu la yàlla def mais tey le président Bassirou Diomaye Faye est le cinquième président de la République du Sénégal Et il a besoin du président Ousmane Sonko. Et vous allez voir le président Ousmane Sonko. Vous n'avez pas voulu le voir comme candidat. Parce que vous allez le voir dans le palais. Demain, le président Macky Sall il va donner des passages de service jacques président Bassirou Diomaye jàkkaarloog président Ousmane Sonko jël lenga Nous sommes leen ko ñun ñun ñun patriote nous loolu la ñu bëgg ñun loolu métti wuñu ñun parce que xam nga ñun intérêt naka ngay le président Bassirou Diomaye qualité yi ne ci mom jom ak fulla gi ne ci mom ak bëgg réew mi am le président Ousmane Sonko ak fi mu tollu ci dimension ngeen ne da ngeen koy Sénégalais au nom de quoi au nom de des gens qui te disent toi ci plateau télé yi ñun faluñu Bassirou Diomaye Ousmane Sonko la fal mais t'étais où mais mais t'étais pas dans ce pays là bi ngay dégg Sonko moy Diomaye ñun ñu ah. Sénégalais yi Diomaye moy Sonko ñun fenn ñu Sénégalais Sénégalais loolu lañ leen jaay ñun loolu ñu dans un pays mënu ñu nangu ce qui est sûr 54% des sénégalais virgule 28 duma ci wàññi nee nañu Sonko moy jomay dañu bëgg gis Sonko di gis jomay à travers jomay ñuy gis Sonko à travers Sonko ñu gis jomay loolu la wax. maintenant on est en démocratie maintenant que ce soit un débat tout le monde est libre ku nekk mën na ci polémique débat mais ce qui est sûr mooy loolu ngeen di bañ loolu la jaay sénégalais sénégalais yi jënd ko ba wis ñu loolu la doxal nak en tout cas tant que mi ngi neex président Bassirou Diomaye Faye

les gens ont voulu nous imposer le protocole de de Manuel wax nañ fi lu ne doxal na doxal def def mi ngi tracé ci jom ci fulla ak fayda loolu nag patriote ñoko mom nañu xam ne ñun ñi ñu jiital ñu am fulla ñu am fayda lañ ñu am fulla ñu am fayda lañ fulla ak fayda bi am di doxal ñun nañu am fulla ak fayda nous mel pour débat pauvre en fait débat pauvre bu ko nangou. mais surtout bu ñu nangu ñu tàggali ñoo ñu tàggali ñu ak li fi nekk loolu laa doon wax sank. dégg ay wax yu génn comme quoi investiture bi amna, il y a beaucoup de gens ñu bëgg a dem am ñu jóge ci diaspora na gars yi am xel na gars yi def nii na gars yi def na leen il faut qu'on refuse qu'on nous infantilise en fait et souvent, il faut qu'on refuse, quand on parle aux patriotes, ni même ni des gens qui sont immatures en fait. Non, non, non, non. Ni sont immatures. Parce que souvent, am y a des traits, rek ne peut ni pas comprendre en fait que que que parti politique là ay sénégalais ñom ñoo ñew dem ci coordination yi ont ko ñoo créé ay cellule nek ci parti politique mu 2014 di màgg di màgg di màgg di màgg di màgg ba yegsi fi mu yegsi bu ñu déstabiliser parti politique bo bu ñu déstabiliser appareil heureusement que le président Ousmane Sonko mo moy toujours le président du parti ce parti existe et ce parti c'est pas les réseaux sociaux ce parti c'est pas n'est pas la révolution bi nous gis ni parti bi mais c'est une entité qui est solide soudée organisée et bien structurée elle doit être protégée cette organisation elle doit être protégée Elle doit promouvoir dañ ko maintenir dañ ko renforcer parce que xeex pour le pouvoir mais da doit koy conserver man je suis pas d'accord. Nous ñu naan patriotes écartez écarté les patriotes kenn fait fi écarté vous. fii kenn du fi écarté wu Pastef dafay toog rigou. mais du nguuru dafay doxal bu daan Ousmane Bassirou Diomaye ak Ousmane Sonko dañuy doxal ak seeni nit arrêtez ce débat là ça a rien à voir avec don de soi nangam Fi, kenn xeexu pour nekk rien du tout on s'est on s'est battu pour nous imposer un projet gungeko buñu ñu ci man wutuma lii fii kenn mu parce que kenn xamul sax looy am a Bassirou de ñoom ku leen neex ñu ànd ak mais ñun dañuy dañuy gunge projet bi dañ dañuy y a pas de toog fii nañ toog ku ne am na loo mën wala wala de dire menuisier bi demal nga defi menuiserie mécanicien bi arrêté de dire aux gens lu ñuy def lu ñu dul def ñi bàyyi nit ñi nit ñu def sentir

lol du don de soi pour la patrie de don de soi pour la patrie Moi, maintenant un don de soi lan nga pare pour joxe ci temps ci énergie boo nekkoon benn nit ko xam yaa ngi woon fii ci kaw bi am yenn salaire yi am ben compétence bo meuna indi est-ce que pare nga pour salaire bi bi le président bassir Diomaye war jox nga ñak ci dara pour indi compétence bi nga am ak yenen ak yenen il y a des identités remarquables qui doivent servir de leçon pour les générations à venir bëgguma joxe exemple mais il y a des gens qui se sont battus am ay vous pensez que c'est normal Sénégalais yi xëy di leen gis marché c'est pas bien pour la perception Ce n'est pas bien pour un engagement sur nous. Ce n'est c'est pas une leçon que nous avons à c'est des en fait c'est des aspects sociologiques qu'il faut prendre en compte Moi, que ma ne nous nañu pas di ci débattre ñun nous lan moo fi nekk ñu ngi def ay activités citoyennes ok na ñu koy def loolu c'est le loolu lu normal la li war di def chaque jour mais le président Bassirou Diomaye à partir de demain bu bu nee tëj fi mu jël dañu ko war a accompagner foofu ku ci nekk ci li nga mën ku ci nekk ci li nga xam wala ku nekk xam ku ko mën am na loo xam da koy def te doo ci xaar kenn. amna lo xam da ngay xam ne baax na nga ñëw jege gaay yi ne ah lii de gis naa ko président Diomaye nee na fii la jëm de gis naa ne lii baax na ci am na ñoo xam ils ont des compétences on doit les encourager à aller soutenir ce projet là juste pour dire que à ce niveau là man je pense que cëggalu yu président Diomaye fay la et lu bëri leer na ci projet bi beneen affaire bi Moi li ma doon wax sànq lu jëm ci wàllu invitation yi ñuy joxe ci ci ci ci ci ci investiture bi c'est normal ku ku nekk bëgg a dem y a beaucoup de gens yoo xam jóge nañ ci diaspora bi dem nañ et lu légitime la lu légitime la lenn rek lañuy la ñuy ñaan les gens sont libres de vouloir aller participer les gens sont libres de vouloir nekk fa gisee yu ni mel li ëpp solo fi ñu war a interpeller gars yi rek mooy la responsabilité la responsabilité c'est très important man mii di wax ak yéen nii ma fi ma toog nii y a beaucoup de gens yu yaakaar ne man mën naa joxe ay carton d'invitation te xam naa ne noonu la ko ñeneen di dundee loolu nag moom mooy état. lolou mom moy tax ñu bari modeste bi ngay am pour baña japp jàpp ne man xamna Ousmane Sonko donc man na li xamna Basirou man na li man le temps de passif la man na li il faut que ñu éviter ko ñun suñu préoccupation bu mu nekk kuy dem ak dul dem gis nga fofu bu yeggee gaay dañ ko xéer ku wara dugg di nga dugg ku wara dugg do dugg lolou c'est des décisions personnelles nit ki jóg dé day dem wara du dem li ëpp solo mooy suba na affaire bi réussir bu réussir Bassirou président Bassirou jomaay mën a jëm ci leneen ñun loolu lañu war a yàkkamti en fait bu ñu nangu sax ñu dugal ñu ci détail ku am ticket ku amul ticket ku am lii ku amul lii ku def lii ku deful lii déedéet wala surtout nag buñ jógee foofu noonu ku ñuy fal ak dul fal kuy nekk lii ak ku dul nekk la ci lay profité laal benn polémique boo xamante ni on a vu dans les réseaux sociaux beaucoup de gens dire que tel doit être tel tel doit être tel tel doit être tel man jàpp naa ne ah, am na nu muy fësee trop ci ku xaw a xam le président et le président Ousmane Sonko kooku am na nu ñu koy bu waroon doon dara sax ça est très compliqué pour mu doon ko après parce que les compétences ne manquent pas en fait Sénégal les compétences ne manquent pas le passif a décidé de réduire drastiquement le train de vie de l'État maanaam du ñu am ay ministres yu yu ni mel <coughs> te gis nga affaire c'est plus sérieux que ça diw day nekk ministre diou day nek ministre parce que sur tel ou tel aspect kii na l'exemple de Tahirou Sarr man Tahirou Sarr c'est mon ami Tahirou c'est mon ami dañuy déganté moy il est très pertinent guerrier la jambar la japp na ci combat bi hmm? beaucoup de gens ñu ngi koy wax lolu mu waxul peut-être ñu ngi koy lo prétention bu mu amul amna wala amul au moins le débat se pose et je pense qu'on doit aller vers ces débats là président mais man ce qui m'intéresse moi, les débats qui sont posés en fait le nationalisme la question sur les étrangers la question sur les visas la question sur les titres de séjour la question sur la sécurité la question sur nos frontières pour moi, on doit discuter de ces concepts là on doit discuter de ces problématiques là mais pas angle biñ ko bëgg en fait lenn rek laay demander gars yi bu ñuy poser débat débats. parce que ce débat là c'est plus sur l'angle sociologique lañ ko poser qu'autre chose en fait comprendre euh, parce que la problématique biñu nous soulever dama bëgg profiter profité man ma wax ci suma xalaat lo rek a tax ma tuddu ko et je sais que man déglu naa ko jàpp naa ne. Nous avons ñu peut-être aussi d'accord sur le fait que nous poser la problématique parce que le nationalisme c'est un concept boo phénomène social nous réduire au Sénégal ce qu'il faut comprendre c'est que l'histoire là analyse, pour pour vite fait il faut que nous comprendre Guinée Guinée moyenne basse Guinée té patte bu ci nekk dafa am ñu fa dëkk ñi nga xamante ni ay pël lañ nekk ay guinéen am benn patte bu ñu dëkk ñoom mosuñu yor nguur gi ñaar ñële moom ñoom ñooy paasante nguur gi dama bëgg a gàttal rek bëgguma mu jël lay peut-être mën nañ ci yow ci yeneen occasion donc exclusion bobu noonu non ñom déjà ñom dañu ko dund seen propre dëkk te ci biir exclusion boobu boo demee analyse jusqu'au fond boo demee ba ci biir sa da ngay gis que ne

mën nañ fa am loo xamante ni lu leen mën a jëriñ la seen dëkk comme ñun ni ñu koy defee ñun sénégalais yi dem feneen ak feneen ñu ñëw Sénégal bu ñu jëlee par exemple ci boutique yi bi ñoom ñoo njëkk a ñëw téye boutique yi avant ñoom avant l' événement les événements de 93 94 événement naar yi ñu événement naar yi naar yi ñoom ñoo yoroon suñu boutique yi donc le fait que ñoom ñu ñëw di jël boutique yi parce que sénégalais yi jëluñu ko du ñoom ñoo ko njëkkee am na ñeneen ñu ñëw fekk sénégalais yi jël donc le problème est ce que ñoom la.

je suis allé en Espagne je sais que j'ai vu des choses même en Italie je sais que j'ai vu des choses même ici en France même si vous faites des c'est beaucoup moins truc on voit des choses en fait Ce n'est pas pour le justifier autant les gens peuvent faire des choses qui ne sont pas catholiques autant aussi les gens y ont organisé des ñoo ils font pas des choses catholiques cest là des cadres déjà pour moi, il la la problématique en fait fa la problématique bi nekk ban organisation lañ fa dans un pays y a ce qu'on appelle les services d'hygiène y a ce qu'on appelle des services d'hygiène est-ce que vous organisez organiser état bu sérieux mettre les moyens qu'il faut wala ñu koy jaf ba Ngom jox service d'hygiène tous les moyens yi nga xam am le travail qu'il faut est-ce que lu mel noonu dina am donc c'est plus lié à des problèmes de gouvernance que des problèmes de que des gens yuy ñëw di def wala ñu ñàkk le problème il est beaucoup plus global là ça touche plus ou moins l'aspect sociologique nga ñëw feneen bi ñu démé ba bari avec le système libéral bi Abdoulaye les gens ont senti le besoin jàpp na c'est un nombre de xam qui ñu voter ñuy naturaliser comme ont naturaliser d'autres étrangers mais avec le régime de Macky Sall ils l'ont exacerbé en fait ce qui veut dire en outre que booy adressé woog ñooñu noonu il faut jamais perdre de vue que vous tu t'adresses à des sénégalais souvent ils xam dañoo am ay kayit yu wóor waxuma ñëpp dañoo am ay kayit yu mais c'est des sénégalais comme les sénégalais bi bu nee ñëw fii ñu comme ko bu am kayit un français italien non, américain non, keneen ak keneen noonu moi dama ne problématique bi il faut que nous jël ko ci benn angle xam beaucoup plus global en fait ñu bañ ko jël sous l'angle de tel ou tel <laughs> on parle à l'échelle de cette communauté-là. Mais il y a d'autres communautés qui sont au Sénégal. Nous sommes The échelle. Ils Le problème, il est beaucoup plus global. On les connaît. Au Sénégal, vous dem gis nit ku yor magasin bo qui des ben sac ils des milliards, des milliards Et puis on sait des choses hein. On sait des choses. le problème, il est beaucoup plus global. Man pour man, il y a une offre problématique wala nga am Expliquez vision Sénégalais Là, nous vision bien en fait ce serait peut-être dangereux peut-être de surfer sur des problématiques qui d'ordre sociologique en fait pour peut-être toucher telle ou telle sensibilité dans ce pays il y a beaucoup de gens des étrangers qui foutent le bordel comme fait en France il y a des Sénégalais il y a des Algériens il y a des Français qui foutent le bordel c'est partout dans le monde des gens en Afrique yuy dem di def immigration di bokk benn pokkus di bokk boo nekk am na Afrique am Europe am na fépp li interpeller et c'est là où peut-être fa ñu war a déglu un état doit être organisé dëkk da nga koy sécuriser luy dugg luy génn këyit warul nekk këyitu suukar booy tasaare fu mais le peuple guinéen est un peuple frère les Guinéens qui sont au Sénégalais ce sont nos frères et beaucoup d'entre eux c'est des patriotes ñun nous sommes des panafricains purs et durs purs et durs et on ne peut pas. On ne peut pas là. En fait, on ne peut pas imputer à une communauté le fait isolé de, de leurs membres. Ou d'un groupe, d'un petit groupe. Moi, je ma problème boobu ko jël de de manière beaucoup plus globale et que aussi ñun patriote de ràññee suñu nous, Nous comprendre suñu projet nous xam fi ñu jëm en fait aujourd'hui on a un pays où il y a beaucoup de fractures Il y a beaucoup de fractures nañu patient nañu def ndànk dafa am loo xam dañu ko war a tëye ba pare door ko mën a doxal tey on vient de prendre le pouvoir fraîchement accompagnons ngir yàlla le président Bassirou Diomaye Faye parce qu'il va être très critiqué le le le le système est là hein. le système est là soyons soudés soyons unis autour du projet bu kenn toog fenn bu kenn génn fenn les cellules de passif continuer de fonctionner section yi di fonctionner

que Pastef réussisse, qu'ils ne veulent pas que le président Diomaye Faye réussisse, qu'ils ne veulent pas que le président Ousmane réussisse. Beaucoup de réussir. Il y a des gens qui ne supporteront jamais cette défaite qui est historique. En Afrique, un opposant qui vient d'arriver, qui gagne au premier tour, ces circonstances, ils m'ont gagné. Ça, il faut le faire. Maintenant, il faut répondre aux exigences des Sénégalais. Le président Bassirou Diomaye, je le répète, il a parlé de cohésion. Il a parlé de réduction

ils ont été formés par l'État. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils savent où est-ce qu'on les, où est-ce qu'on les attend. Hamnani nañu Macky Hamnani Macky Sall xam doful sax doful sax c'est que yoyu du problème C'est une à c'est le cadet de nos soucis en fait il faut il faut juste qu'on évite d'en faire ay polémique pour mon nekk un débat le président Bassirou Diomaye il va prendre les actes qu'il mu war Mon jël moom le président de la République acte yooyu mu jël dafa soxla nous dooleel ko au début dafa soxla conciliant ñun patriotes ñu résilient dafa soxla ñu am compréhension am esprit de dépassement man nak mu n'importe quoi mais dafa laaj ñu protéger ko sécuriser communiquer ko expliquer comprendre parce que fi sur des choses c'est système di a parce que ont encore l'argent ils ont encore une certaine puissance il faut que ñu fexe le président Bassirou Diomaye taxaw ci kaw ca collu ga ngay seen le président Ousmane Sonko ci wétam di seen gaay ci wétam wetam ñu xam ne gars ngi fi ñu xam ne ñii duñu ñeekum ñebbe ku ñëw ñu def leen teg yow li may terminer mooy par rapport à une à l'opposition bi ñu wax ñun nag li ñu bëgg mooy ñëw leen gën opposé wu ñëw leen gën opposé wu ñun dañu bëgg opposition bu gën a radical Pastef mais bu gën a constitué buy proposer ay idées parce que cette fois ci du amul tëj de je de l'opposition je parle de l'activité politique parlons de parlons parlons d'économie parlons de politique parlons de décentralisation parlons de santé parlons de sécurité parlons de la petite enfance parlons de la femme parlons de ça parlons de la fiscalité Parlons de notre modèle économique en fait. Parlons de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage. Parlons de l'emploi des jeunes. Parlons du secteur secondaire de l'industrialisation. Parlons de PME, de PMI, d'une des transformations Parlons de, parlons, de, parlons de la terre. Parlons de nos ressources. Nous débat pas de nous te débat de nous pàccati foofu la nous war a dem waratuñu rek dem ci site yi pour toi nous devons nous cadre on doit en parler il hein, y' a pas de souci après que justice se fasse mais on doit aussi promouvoir ce Sénégal là Sénégal doit xam dañuy wax xam-xam di à travers profil mais il faut que et on a l'occasion d'avoir lutté contre la dépolitisation de la société et de la jeunesse les Sénégalais s'intéressent à la chose politique. Aujourd'hui, c'est le moment d'impliquer tout le monde. C'est le moment de, tout, de dire à la lutte, aux communicateurs traditionnels, au monde du sport, à tous ces gens-là à qui on a fait croire, ou à certaines religions, que le pasteur de Réunion pour une, transformation, ça n'a rien à voir avec nos réalités socioculturelles. C'est le moment de leur dire basta. Terminer par une chose il y a beaucoup de nos frères qui ont été en prison ils ont subi des des des des des des des traumas on peut le comprendre mais ça ne sert à rien aussi de partager ces réseaux sociaux di dougou ay tur di wax di wax di wax di wax comprendre je pense que Parti est un parti très organisé les gens ont les numéros des responsables Il y a des questions qui xam ñoom ñoo ko en charge et que réseaux sociaux ñu def ci ndànk démb démb romb naa ci TikTok bi gis benn waay di wax banane wa diaspora bi yone 30 ñun ñi dem ci terrain il faut arrêter ça fi nañu and modeste ak humilité combat depuis 2014 la mu am ñu ko je 2016 mu am ñu ñëw 2010 mu am ñu 2019 mu am 2020 2021 2022 2023 ba 2024 mu am ñu la question ne se situe pas à ce niveau la question ne se situe pas entre diaspora ou quoi que ce soit Il y a des gens qui ont fait des sacrifices dans la diaspora nit wàcc na ci terrain bi jàkkaarloo policier deful soyons très modestes. La question, moi j'ai toujours refusé cette question-là. Cette truc avec diaspora et fille. Il y a des diaspora, nous nek fils diaspora bi, nous talk sen salon, des raconter n'importe quoi, des voir le nerf. La même façon, nous Sénégalais wax le nerf. Dañu éviter lolu. Affaire du jaxasso. Nit djoum na djoumul. Non, on avance. Nit mbir dang koy gérer de manière très responsable. Il faut aller vers des gens qui sont capables d'aller régler la situation. Ils sont là ça sert à rien ku nekk nekk ci réseaux sociaux yi diw dafa ni mais diw dafa ni bu len ko wax li bu len ko wax la kërëb kërëb bu ñu mënul Mais c'est facile à gérer sinon bu ñu ko gérer mais nos responsables la limite tu te ils servent à quoi en fait vraiment il y a des situations yo xamante ni nañu ko moytu quoi comprendre et que aussi autant on doit laisser les gens nous exprimer parce qu'on est en démocratie parce que tëjul kenn ku mu neex mu wax waxuñ fenn que ne El Malick rek moo mën a wax El il peut parler de manière officielle au nom des partis. mais les partis sont libres d'aller dans des débats de discuter de parler de tout comprendre nga mais nit aussi dafa am boo xam boo fa tollee ci combat di wax ba à travers yow ñuy gis le président Diomaye le président Ousmane Sonko à Pastef il faut avoir du retenu en fait il faut que nga teey il faut que nga def ndànk il faut que nga def ndànk et nga bañ a wax n'importe comment n'importe où loo xam boo ci defee erreur dañ koy toftal parti ba wala ñu toftal ko le président Sonko wala le président Bassirou Diomaye je pense que c'est des choses comme ça où man je dem foofu laay ñaanee en tout cas ñi nga xamante ne nii y a le passif qui est structuré organisé nga xam communication bi y a les El Malick les citizens les SADE qui gèrent comprendre autant y a des patriotes qui sont à côté yoo xam ils ont toujours été là et ils sont autant légitimes pas de manière structurelle ci parti bi mais

mais gëstul un peu sax ñun Pastef président Bassirou Diomaye programme bi xam nga woowal kenn mu ne la ah boo demee mun nga laal tel ou tel aspect éviter le sujet bi éviter le sujet bi nga dem toog wax comprendre nga loolu aussi responsabilité la responsabilité la parce que télé yi ñu ci bëri ñoom vue lañu soxla des fois polémique sax moom moo leen arrangé est-ce que dégg polémique moom moo leen arrangé am na yenn niveau yoo xam aussi boo fa tollee en tout cas daal ñun mun nañ dimbalante suñu biir quoi mun nañ vraiment dimbalenté suñu biir voilà y a des choses yo xam moom vraiment man je pense que dafa bokkoon ci lu ñuy quoi man j'ai pas envie des fois di gis des choses yo xam wa APR ñoom ñoko ko doon def quoi ay polémique ay jappanté xasante saganté très sincèrement c'est pas pastif et et buñ ci nekkee dinañ tooñ ñu bari quoi voilà dinañ tooñ ñu bari quoi ça fait des années on combat on a toujours fait en sorte que ñu tëye image bo xamanté dina rafet ci pastif waaw man mi nga may musuma des fois day day dafa am genre bu bu dem shit bu donc nit du xaar ci nous xaj nga di ci di ci quoi lu ñuy waxtaan la suñu et puis ñu bañ encourager mettre le projet pas des personnes nañu mettre le projet en avant ñu di wax mais pas mu nek ci biti nañ koy wax ci biir ñu ñep nañ téléphone et souvent, trop de communication aussi tue la communication. Il faut savoir taire les choses. C'est pas en venant expliquer, expliquer, nous allons expliquer, nous allons indi polémique. Mais si vous avez li mu ngi dem ci direction bo xam enranger le parti bi enranger le projet bi dang koy fay dang koy fay dem denk ko ko xamanteni ni yalla may na ko responsable wala ma xam mën ko gérer en fait waaw mu mën ko gérer leneen li mooy parce que il faut pas penser que peut-être xaw ma olof da ngay gën a jege gën a yey gis nga le président Ousmane Sonko c'est un patiwaan kenn moomu ko man mii su ma nekkoon Sénégal kenn du ma gën a jege président Ousmane Sonko sama bakkan bi laa ci teg fu mu taxaw ma taxaw fa bu ma nekkoon Sénégal dem fa campagne kenn du ma jiitu ci QG ba fa laay dugg fa laay toog xeex comme ñëpp mais ñëpp mënuñ ko def diaspora bi mënuñ jóge dem keneen ñëpp jóge c'est mënul nekk mais nañu jàpp ne les gens sont partout et les gens se sont battus partout humilité humilité nañu ko am dama koy ñaan rek humilité tàmbalee bi ci man humilité dama seetaan Citizen li mu def une émission avec Thérèse Faye sur Jakaarlo j'ai bien aimé son attitude humilité moom Thérèse dafa ñëwoon indi gat sa gat mais mu mu xam moom léegi posture bi mu am xam ni mu war a taxawee humilité des fois da ngay gis Thérèse attaque ko ngay xaar mu ñëw kii mais mu waaf humilité après def nit ñu gis c'est très très très

parce que bu ñu échec c'est le projet moom mooy échec C'est l'avenir du projet du passé qui l'avenir en du président Bassirou Diomaye c'est l'avenir du président Ousmane Sonko mon moo nekk en jeu te ku nekk xam na ne ñun am nañ yéene bu rëy bu ñu am ci président Bassirou Diomaye am ci moom xam na li ne tey épaule am xam na il a besoin de tous les patriotes il a besoin du parti il a besoin de tous les militants et sympathisants il a besoin de tous les sénégalais yi nga tous les Sénégalais nañ Sénégal boo xam Sénégal ñëpp la je pense que le moment moment enjeu on sera là pour déconstruire encore une fois les manœuvres politiciennes pour déconstruire les intoxications les mensonges on sera là pour défendre pour accompagner pour sécuriser le projet voilà et tout et je suis persuadé que aussi ceux qui ont des préoccupations par rapport à la justice voilà n'oubliez jamais que <laughs> voilà les c'est des patriotes comme nous qui savent ce qui s'est passé, qui, qui, qui, sont vraiment conscients de leurs responsabilités pour vraiment dello aussi les familles des martyrs, des détenus, des gens qui sont blessés et tout. Euh, voilà quoi, je pense que nous avons un petit peu parce que ça fait 10 ans quand même que nous avons de et et et, nañ ban genre nit lañ ñun yàllaa la rek ba ba ba bu état changer kenn te bokk na ci ñun ñu taxaw and ak ñom ba des fois ku ci bëgg voilà quoi ñu xol ñu doxalee ak yow mais vraiment on peut avoir confiance on est capable de le faire les attentes sont nombreuses la responsabilité elle est voilà elle est là mais on peut le faire voilà on peut le faire bu fekkente ne focus nañ ci l'essentiel quoi ma ngi leen di bëggee di leen ziar bu baax jaa ngeen jëf